boo xoolee Sénégalais yi ku yàlla may nga romb bu ndékki yaa ngi xool nooy lijjantee añ te loolu moo ëpp ci Sénégalais kon ku mel noonu bu fekkee liggéeyu liy tax tey nga mën a mobiliser xelam ak énergie pour yóbbu ko ci grand projet yi yaa ngi koy wax li nga xam ni di priorité te loolu mënul am tant que li nga xam ni moom la ñuy dundee mënuñu di arrêté di ko jege mënoo tey ci sa biir palais nga nekk di paysans pakistanais ou les paysan indien moom moo ko liggéey li ngay ci paysan il faut une agriculture pour nous permettre non seulement de couvrir les besoins des Sénégalais mais de nous permettre aussi de chercher de prix que nous koy bañ di subir compatriotes

et pour loolu fexe ba li nga xamni mo fay mbóot don fa li nga xamni moy difficulté ñu xol ñu koy faté fexé ba enseignants yi ñu jox leen gëdd yi war fexé ba infrastructure ñu mën koy yokk mais mu don également ay infrastructure de qualité ndaxte seetlu ñu tey sénégalais yu bari ñu ngi yóbbu seen doom ci privé te bu féké ñu mu ndaw ndaw benn doom bu né da nga fay 20000 bu la ci yalla may nga am ñent bañ juróom

nous mobiliser les énergies du plan chantier de développement Grand chantier de développement est wax Sénégal ko le Sénégal dafa xat le Sénégal dafa ñëw fekk possible. Sénégalais le dañoo ñëw concentré Dakar Dakar 543 km2, 0,3 de la superficie de recevoir le plus du quart de la population. En 80 de l'activité économique 70 des véhicules immatriculés recevront recevoir 1200 camions par jour donc Dakar s'étouffe il faut libérer Dakar et ouvrir Dakar du reste Sénégal Faire aussi nous suuraale lépp lu ñuy def la responsabilité des générations les xam ne ñu ñëw le Sénégal xam ngeen ni millions d'habitants. Aujourd'hui, on est 18 millions d'habitants.

recevoir nañu ay ñok recevoir ay orientation ci kilifa diine yi kilifa aada organisation professionnelle yi daanu wa ci ñooñu wax leen li ñu tënk bu ko défé bu ñu amé lu ñu ciy ñu dolli ko bu ko défé mu doon in programme bi nga xamni day doon un programme des sénégalais pour les sénégalais et bu boobaa daanu organiser wax naa ko ay audience publique il y a ni daan ko def ci zone yi nekk Sénégal nord sud est ouest centre def aussi au niveau de la diaspora